asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ànd ak ñun ci mafatihul bisri ñu dellusiwaat ak yéen ci seen naafila bis bi mu ne guddi ñeenteel ga ku ca julli ñeenti rakka rakka bu ci ne fatiha benn yoon ak xul yaa ayyuhal ñetti yoon dees na ko bindal tuyaabay jaamuk junniy nit te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon jullee kon julli gaa ngoog eh, ñeenti rakka la fatiha benn yoon ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah